fatali rek ne 23 juin dafa nek date bu am solo ci sunum rew mu nekkoon date bo xam dañ doon xéxal li nga xam moy démocratie ak li nga xam mom moy la république ñu fas nak suba and ak acteurs yi ko sékkone yépp ak société civile pour célébrer li nga xam moy mooy at manam fukkeelu anniversaire mouvement bobu nga xam diko fatali aussi moy que mouvement citoyen la du mouvement politique di wax ne suba dinañu def une mobilisation exceptionnelle fàttali euh, li nga xam ne moom mooy bés boobu nga xam ne bés bu am solo la ci suñu histoire réew di wax ne nag euh, tey dañu gis ay nit ñoo xam ne dañuy mbubboo bés boobu ne dañ koy fàttaliku ak sénégalais yi ñu leen di wax aussi ne leen ñoom ñooñu nekkuñu woon acteur bés boobu nga xam ne moom mooy le 23 juin ndax ba sénégalais yi di génn di arrêté l'ancien président le régime par rapport à ce qui a imposé, le car bloquant ca buntu assemblée nationale yakarna y ne jeunes yi tok ci présidium bi ak yenen yu président de la république son excellence Macky Sall feu Ousmane Tanordien, l'actuel président de l'assemblée nationale ak yeneeni kilifa ak la société civile pour wax o ki nga xam mo fi gouvernement Lolu motax tay duñu du nangu kenn di M23 té nekk won acteur ci bo lolu nak mën nañu wax né président de la république lamu mu waxoon ak sénégalais yi bañ koy fal manam le projet de société qu'il avait présenté mu ngi nekk diko doxal mok gouvernement ñu ko ciy félicité bu baax baax au nom de la taxe force républicaine et au nom de l'alliance pour la république té lolu yeb bu koy def c'est pour mu wañi jafé jafé askan wi li jëm Fuuta ak fépp fo dem ci Sénégal bo xolé di nga gis les réalisations yi nga xamné président de la République mu ngi koy def ak gouvernement pour teunk nak wax ji euh, ñu ngi wax né l'Alliance pour la République mësuta def li nga xamné mom moy mooy violence kenn wuñu ñu nekk parti bo xamné parti buy jëfandikoo violence la wala diko def nous sommes des républicains c'est pas pour rien ñu jël suñu parti tuddé ko Alliance pour la République nous sommes au service du peuple et pour la République loolu motax ñuy wax né képp kuy utiliser violence ci biir champ politique bi ñu ngi koy dénoncer té diko ñaawlu ñaawlu fu mu donc di wax né rek alliance pour la république parti la mais parti bu am discipline la té du def mukk recours ci li nga xam ne moom mooy violence